Macron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda Walfadjri la des sans fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yap seen askan xam leen ne benn patron rek la am mooy le peuple sénégal kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay Sidy Lamine joxu leen ko wallaahi Sidy Lamine joxu leen ko seen patron tudd Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda Walfadjri, la voix des sans-voix. Walfadjri. la Bougaz Mame Diarra Bousso mi sàmm kaarange client bi Jolof Chicken di ganaaru ODK Oil yi Promobil ak Pis Mbégte ñoo leen di may seen émission Taku Show. di nuyu sëriñ Moustapha xalifa cheikh Mouhamadou Lamine Baara di xalifa cheikh Sidil Maxtar di nuyu soxna May Mbacke bintu cheikh Sidil Maxtar di nuyu sëriñ Abdou Samad Mbacke mu cheikh Sidil Maxtar di nuyu sëriñ Mouda Issa Mbacke di nuyu sëriñ Jiili mu cheikh Sidil Maxtar ak sëriñ Abdou Latif mu cheikh Sidil Maxtar ak sëriñ Xaadim ak sëriñ Saaliwu ñoom ñëpp di njabootuk Cheikh Sidil Makhtar Mbacke di nuyu sëñ Abdourahmane Mbacke xalifa sëñ euh, di doomi sëñ Abdoul Aziz Baara di nuyu euh, Abdoulaye Guèye euh, Pa Abdoulaye Seck laa wax sama xarit boo xam ne maa ngi koy wooye Pa Jéeri ak Kolle Seck ñoom sati Galandu Diouf lañ maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Moulay Hassis Guèye ak sama najaay Serigne Khadim Lo Gaydel ak sëñ Moudou Bakke Lo ak sama najaay Cheikh Lo ak mbooleem sama famille yëpp maa ngi leen di wax nag joyeux anniversaire euh, sama benn doom bu ñuy wax nday Xadi Ngom di sama doomu xarit démb la woon anniversaire am tey la euh, sama anniversaire doom sëñ Sidi Maxtaar Ndiaye euh, la 4 avril la juddu woon maa ngi koy joyeux anniversaire ak njaga bi nekk njaga njaga la xaw ma njaga bi nekk bi nekkoon Walfadjri te nekk ah. Sen TV Njaga Fall waaw moom it 4 avril la chaque année damay woo ne ma maa ngi sooy sa doom ji sa anniversaire même docteur Khadim Bamba Diagne tamit hmm. euh, tey la anniversaire am hmm, maa ngi ko ci sowaayete bu baax waaw incha allah hmm. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara nugub nee na yeewu rek Macky Sall sa président rek neex na ko moom ba pare <laughs> nee na xëy rek yëg ni Macky Sall nekkatul sa président rek neex na Cheikh Bara rawatina président Macky Sall nag fi mu toll nii nga xam ni génn na dëkk bi hmm. bésu keroog noo jàngatee Macky Sall war a quitté daal génn Sénégal ci ak yi fi xew yëpp ak li am nit ñi doon wax naan dana amam du am daf bëgg toog ak dafa bëgg a dolli dafa bëgg a def lii dafa waaye président Macky sàll génn na dem na noo jàngatee li nga xam ne mooy mbir moom. waaw moom de xam naa ne sant yàlla ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di delluwaat di keñaat suñu borom subhaanahu wa taala ci màggam gi ak kàttanam gi ak dooleem gi ak dogalam yam yor. di ko def ci nu mu ko neexee ak saa yu ko neexee euh, man nag xam naa tey la première émission boo xamante ne ñu ngi koy def te defuñu ko ci kilifteefu Macky Sall. waaw nekkut sax ci réew mi te amul benn dogal ci ñun. maanaam nga xam ne euh, mboolem dogal bi mu yoroon ba sañoon a seetaan Cheikh Bara mu toog ci télé bi di wax. wax ji am lu ko ci naqari sax maanaam mu daat lay xañ sa jàmm. Hmm. loolu moom yàlla teggi na ko ci loxoom mënatu ko. loolu nag maanaam lu doy kiimaan la parce que euh, soo xoolaatee rek xam ne àdduna euh, kenn wërta jaay doole. Hmm. waaw. Hmm. ndax xam naa ne sénégalais bu nekk yënga ak féex ak toogaat bu baax ci dëkk bi ne alhamdulilah waaye. Hmm. maanaam ci bi bi nga xamante ne président Macky Sall na la gannaaw dem na loolu nag. dara defu ko lu dul ni mu nekkee woon am na wax dëgg yàlla kon noonu ko ndogum waxee. waaw Cheikh du ndogum ndogum maa ngi koy nuyu noonu mu ko waxee wax dëgg yàlla loolu ñëpp noonu lañ ko waxee maanaam yeewu yëg ni président Macky Sall nekkatut sa président. Mm-hmm. neex na parce que da ngay yëg ne maanaam euh, daa am daal ak xat ak ñàkk yërmande. Mm-hmm. ak gaaw a toppee. ak exercer pouvoir. ak jaay doole nit yooyu yëpp. maanaam da nga yëg ni ki nga ko séqaloon moom noonu la ko doon defee ci sa kaw te yëg yëgalu ko yaram saa bu demee nag bañ na la maanaam sa feebar ba wér na wala sa sa maanaam lu mel noonu rek wala ndaw sa <laughs> euh, ëmboon am na doom wala loo xam ne lu comme feebar dal comme biñ ne corona jeex na quoi nit ñi niñ toogaate hmm. comme makki comme corona wax dëgg yàlla <laughs> waaw léegi nag tey moom xam naa ne bëgg naa chronique bi tuuti ma chronique ci Youssou Ndour Youssou waaw Youssou Ndour ko defee jomaa yi di ko déglu hmm. ci jàng ñu jàngate ko euh, dundug Macky sàll gi mu dundoon ak ñun. ah bon waaw. aywa ndax sëñ Touba dafa waxoon waaja maanaam dafa bind ca nax ju ne dañ na waaji noo def ba réussir. Mm-hmm. mu ne kenn wanuma waaye damaa xool ñu échec. fi ñu jaar ba échec laa xool jaaruma fa. Mm-hmm. jamaay nag bu bëggee neex sénégalais yi ak bëgg am ñoom jàmm. Mm-hmm. yomb na jarul muy dem fenn jarul liir benn livre. xool dundug Macky Sall rek. ni mu doon def rek mu def contraire ba. mu moytu ko rek. Mm-hmm. parce que Youssou am na wayam bu muy wax naan jaay doole baaxut. ak ci lu mën a doon. Mm-hmm. tey mën ngaa le ëllëg nga daal di yàqule. Mm-hmm. daan bul naw sa doole bul keñ sa doole ba di ko tiitaroo. waaw dégg nga sa doole dimbili ci jaam ñi. dégg nga daan bul jël yow sa doolee xal di ko xeexee dégg nga. daan sa doole tamit bi dimbali ci jaam ñi daan bis a ngi ci bis yi mm-hmm. ah, te faw bis bi yegsi ñu dajale yow sa jëf yi mm-hmm. nga xam ne yàlla mi ngi fi mm-hmm. dégg nga daan ne ana jàmbaar yu mag ya waaw mu ko waxeete woon ana boroom xam-xam yu mag yi kenn nekkatu fi mu mel ne kon ana ñoom Antoine ana ñoom Ismaïla ana ñoom euh, Mambay Ñang nga xam ne ko wax ko wax mu ne la ay ca yóbbu ci prison bi daal di daal lay parce que damaa yor doole. ana ñooñu tey kenn nekkatu fi. daal ne ah doole du wéy. kon na nga maandu rafetal sa nekkin. daal ne fas wa dafa naagu. waaw nga daal ne doole saxul ndax xaw ma nu ne adduna mën na laa njuuy. waaw nga daal ne dafa naagu ne mbaam ma maa la gën a gaaw. Mhm. booy daw da ngay yéex te man damay gaaw. benn bis fas wa dugg ca teen ba bu dul woon mbaam mi fas wi des ca teen ba mm-hmm. defe naa ne bu dul woon ak jomaay bu ko neexoon mm-hmm. maanaam mbooleem yi daan daje ba Macky Sall mën a jël jomaay def ci prison bi toog mm-hmm. daje na ci loxol jomaay bu neexoon jomaay rek Macky du yéeg avion tey waaw na ko contrôle judiciaire wala mu ne ko alma sa passeport bi wala mu ne ko demal toog Pape Manuel diglu maag maanaam yooyu yëpp mi ci loxol jomaay tey kon mbaam moom xeeboon fas wi fas wi gaawaayam bi mu gisoon gis yeexaayu mi mm-hmm. tey mi ngi ci teen bi te mbàmmee ko ci génnee mm-hmm. dégg mu wax wax boo xam ne nag ci mbëggeel la ko jëmee waaye du ma ko ci jëmee mooy euh, doole gi ci biir mbëggeel kenn mënu koo téye bu xasee ba jóg rek jeex na jàmm jeex na mm-hmm. Macky Sall doole loxo la yoroon yor police yor gendarmerie yor yi décret gis na loolooy doole soo ko yor doole mbëggeel dooley mbëggeel jooju mu yoroon nag bi mu xasee ba déclenché moo dem ba wan na doole ji Macky Sall yoroon ba pare dooley mbëggeel ji nekk fa kon nit boo nekkee ki nit au lieu ngay jël doole maanaam bu njëkkante jël doole di ko di ko sàmmee sa diggante ak ñoom waaye jëlal mbëggeel nga sàmme ko sa ak ñoom ndax ngànnaay ngànnaay li gën a nekk ngànnaay mooy ñu bëgg la bëgg waaw saa boo demee bay yor paaka wala fetal di aar sa bopp rek nekkatoo ci sécurité. sécurité dëgg mooy amour maanaam nit ñi bëgg giñ lay bëgg loolooy ngànnaay lu mag li. Mm-hmm. kon nag loolu na ko ci Macky Sall xamee. parce que Macky man li gis mooy lépp demam gii mu dem. Mm-hmm. ñëpp sant yàlla. sant nañ ñëpp police yi ñu doon jooy. police yeeg. sandarma mm-hmm. yeeg kon kontaan lañ doon jooy. <laughs> doon jooy dañoo dëgg jooy police yeeg sandarma ñëpp a sonn. Uh-huh. parce que Macky Sall dafa exercer pouvoir. dafa cee exagéré dafa daf ko exercer maanaam doole ji la jël jëfandikoo ko ba mu jeex takk. Mm-hmm. Macky Sall mësta taxaw wax ak sénégalais yi te xupp leen. Mm-hmm. doole jaa ngi fi damay def phase nangam nangam bu def nangam ma def la nangam comprendre nga loolu rek la defee woon ne moom mooy moom mooy lii. Mm-hmm. ñu mu àndal fu ñu toll naan reste de force reste à la ku yëngu ñu duma la. ku yëngu ñu noq la ci kaso bi dégg nga maanaam loolu lañ jàppoon ne mooy àdduna. mi mm. ngi nag mi ngi nii jeex na takk tàkk. gone yi nag ñoo naan ñam jeex na gàccaa ca des. dégg mm-hmm. ñam jeex na. gàccaa ca des léegi nag yëf ya jeex na tàkk. Mm. ko ci defoon post Facebook mu ngi fi. bañ ma tëyee Mamadou Lamine Massaly ma toogoon di tarare ma teg lu ko neex. Mm-hmm. parce que ci dooley Macky Sall jeex na. tey mi ngi nii mën naa dox àdduna bañ jàkkaarloo ma ak moom. Mm-hmm. ma xam may xalaat li ma de li ma doon wax lépp jeex na. léegi wax joojoo fi des ak ñaawtee yi. Mhm. moo tax ñii toog nañ jël loolu ñu def ko seen mbind waaw parce que Macky Sall yàlla da koo meree. ah kese merum yàlla doon ko jàpp kese. xam ah, nga ko meree. xam nga Youssou daf ne maanaam booy jaay doole tey man ngaa baaxle ëllëg nga daal di yàqule. waaw Macky nag daa yàqule. dafa yàq mooy bis bi mu jëlee big. waaw xamut fu Ousmane Sonko jàngee. Mhm. xamut fu mu fu mu fu mu defee concours bagam. Mm. xamut yan jafe-jafe la dund université xamut yan yaakaar la ay juróom am ci moom. Mm. muy dox di liggéey di jàng ba am xam-xam ba Sénégal nangul ko ne ko yow de borom xam-xam nga mën ngaa liggéey ci lii ak ci lii jox ko ko mu dem di liggéey liggéeyam ba mën a jënd kër jënd këram mën a takk jabar takk jabaram yaakaar ci xam-xam boobu mu yor. Mm. di ko jox Sénégal Sénégal di ko fay mu ne mën naa cee yor sama njaboot di leen ci jàngal di leen ci suturaal dara du xew. ma ki toog ci ay wax yi ñàkk fayda képp maanaam ay wax yu amut bopp amut geer ndax tey ji maanaam la Sonko ko defoon muy alerté waaw ñu ne ko dañ koy dàq tey ji jomaa yi nii nee na ko alerté ma décoré la waaw kon xam nga ne Sonko lan defoon bu doon loo aaya kay mënuñoo ñëw di ko di ci décoré ni beew rek mm-hmm. beew rek ak fàtte yàlla naw sa bopp mm-hmm. daal dina jël naa big koros xoros kii moom na dem ci bokk ci gaaluk torox gi yàlla mere ko nag. Hmm? waaw mere ko daa di jël li woon ci moom muy président. Hmm? roof ko Sonko jël torox gi mu yéene woon Sonko roof ko. Hmm. saa bu xëyee di xal ko. waaw di dem rek di wàññi ko ñu naan ma ngay wàññi ko saa boo kilo bu Macky Sall wàññi ko boo ko xoolee Moodu dañoo fàtte man rek lañ teg ci bi boo ko xoolee ma ngay yokk ca Sonko ba ba mu xëy rek maanaam mbir ma ne këlëb big ba mu yoroon di ci dàq nit ñi jomaay ñëw fekk ko ca palais bi na ko andi big bi. jox ko bi mu jox ko ko. Mhm. police ba mu yoroon ak gendarmerie di ci tëj nit ñi ko tijji. waaw jomaay ne ko andi caabi police. Mhm. mu jox ko. bi mu yoroon xaalis bi ko beewloo woon mu ne ko andi indi andi caabi. Euh, euh, condamné bi coffre-fort bi. Mhm. mu jox ko. fetal yi mu yoroon mu ne ko andi fetal yi. mu des caabi palais bi mu ne ko indi mu jox ko mu ne ko ay dégg nga gaa yi mbib topp ko mu génn dem. <laughs> nañ ko biibal nañ ko. àdduna. <laughs> moo tax. waaw il faut nit ñi di bàyyi xel. Mhm. doole pour dimbali nit ñi la doole pour yërëmale. Mhm. waaye jekku rek di fatar fatari. Mhm. man daanaa dem di toog ba mu yàgg ma ni est ce que waa Benno Bokk Yaakaar yii di ànd ak Macky Sall. waaw est ñun yuur yi ñu yor moom lañ yor est ce xol yi ñu yor moom lañ yor est ce que am nañ ay doom. waaye boo xamee nit koo xam ne daa jàppoon ne àdduna munu fee am oto bu baax. maanaam dem ba yilifub milliard denc ko fu wóor jigéen joo nopp mën caa jot ak téléphone bu génn nga jot ci di yëg ci avion yi maanaam da ngay dem ba jàpp nit ñi dañoo wérut dañoo bon léegi dama leen a maanaam dafa demoon ba nga xam ne foofu lañ dugg mooy loolu mooy ayta inal insaan la yatqa an raaw istaxna maanaam mooy da dem ba génn ci doomu aadama mam nekk ci loo xamut fii na nag bu ñu demee ba xëy nag maanaam nga xam ne mbir yi yeex na takk ci la ñu doog a nag reconnaître na ñoom dañoo dañoo nekkoon ci fu dépassé doomu aadama. juumoon nañ loolu nag groupe bii ñëw tey. Mhm. maa ngi leen ciy woo yàlla nañ ci yàlla musal. amiin yàlla na leen ci yàlla musal. amiin yàlla buñ nekk ay baadoola. amiin yàlla nañ nekk ay nit. amiin waaw parce que nag ki ñu ko séqal de bu ñu ko xoolee muy Ousmane Sonko. Mhm. jàpp naa ne man ab missionnaire la rek. Mhm. keroog rek maa ngi koy wax Omar. waaw Ousmane fu mu jaar. ndox la muy sotti ko day dem université. waaw fekk fa ñuy jàng tubaab fàtte alxuraan mu def concours alxuraan moo ko njëkk a def université Gaston Berger. indi ustaas ñi concours ci alxuraan ak diine. jóge fa dem ñëw impôt fekk leen affaire bi neexut ci ñoom mu defar mu defar syndicat. jëriñoowu ko avant ñu koy jëriñ mën a jëriñoo mu génn dem. sandika boobu tey gis nga boo gisee déclaration patrimoine Diomaye nee na ci syndicat bi. lañ ko sedd terrain bii mu dëkk tey. Hmm. kon njariñ njariñul Sonko ngi noonu te xam naa ne mook syndicaliste yëpp la woon. Hmm. mu génn syndicat ba dem ba ñuy ba ñu koy jariñoo fekk ko fa. mu ñëw dugg ci ci opposition bi muy ñëw fekk na Macky Sall yeew ñëpp. kenn ñemewut a sëqat gaa yee nekk fii di wax rek. Mm. mais bi Sonko koy taxaw di wax Macky Sall kenn ñemewul a sëqat. waaw mu ñëw yeewi opposition bi taxaw. Mm-hmm. ànd ak ñoom. ñu dem ci di euh, local yi. mu jël maire yoo xam ne maanaam ay mel na ñoom Bilal Diatta nga xam ne maanaam mosuñoo am benn ndomba tànk politique. Mm-hmm. ak ñu bari. ci réew mi ñoo xamante ne maire yi dañ ko dencaloon leader parti yeeg yooyu mu jël ay maire yoo xamante ne suñoo yilif dara. ñi gën a génération bi gën a nekk jeune. ci ci ci ci ci Sénégal bi ñu dalee def euh, maire ak léegi moom moo leen jël installé leen fal leen. daal di dem. dugg assemblée nationale fekk Macky fekk ba fa Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak Senghor ak Abdou Diouf ak ñëpp état bee yor doole ji yor kàddu gi opposition bi yor fa ay ay benn baat ñi leen di jaay doole. mu ñëw dugg ensemble xeex ak ñoom def fa cohabitation indil quatre-vingt ñi jox ñi quatre-vingt pare génn dugg fa te ñi mu def député mooy suppléants yi. Mm-hmm. mooy ñoo xam ne daanaka maanaam xaaju ñu woon a mën a nekk député xam nga bu doon ay dem boo Déthié Fall ay ñoom giraas yi Bamba dañ naan ñun mën nañ ko. waaw waaye daa jël ñi nga xam ne moom bu du woon ak maanaam Sonko mënuñoo jaar fenn ba nekkub député. mu dugal leen ensemble ba noppi xaaj kàddu gi jox leen. Mm-hmm. nga xam ne état bi daay yer genn wàll opposition bi yer genn wàll ginnaaw yàlla moom la. Mhm. génn fa ñëw ci ñëw présidentielle. li nga xamoon mooy Abdou Diouf day yor parti falu ci parti am Senghor yor parti falu Ablaye Wade yor PDS falu Macky Sall yor parti falu bii yoon nag maanaam élection yi mooy élection yoo xam ne chef de parti yëpp kenn faluwul. Mhm. benn chef de parti fii lañ faluwul. Mhm. daa jël ci gone yi nga xam ne 1960 ba léegi ci Facebook bi la ñuy nekk xeex ñooy sànni xeer yi ñooy nekk ci. Eh, kii bi di monte estrade yi takk rajo yi bu ñu palee bale ko dem te ñoom yaakaaruñ ci yaakaaruñ ci falu. Hmm. mu jël genn gone ci gone yi toppaate. Hmm. am def ko président. Hmm. njiitu parti luy topp gone c'est la première fois. kon moom dafa mel ne benn ndox benn benn mission la yor boo xam ne ndox moo xam ne fu mu defar ko mu léegi nag man dama ci wootewaat bu bu ñu am complexe. maanaam def ko suñu guide def ko suñu royukaay di ko topp. waaw buñ ñu ci am complexe Sonko bu bu joomaay amul complexe topp ko. waaw ñim àndal amuñu complexe topp ko. waaw mënuñoo juum. mënuñoo juum waaye bari xaalis ak gel yi nga naboon yëpp ñëw ak am passeport dëkk yi nga doon génn te yaakaar ne mënoo faa dem nga dem fa rek bëgg naan léegi xaarama diir mbagg Sonko xaarama eh, ma weranteeg moom. Hmm. buñ ci duggee njuum te day am ndax fii kenn matu fi. Hmm. waaw waaye nag génération bu nekk. day am ku yàlla génn teg ko buñ ko nangulee rek dem. Hmm. nan ko nangul rek. d'accord waaw jërëjëf Cheikh Bara macha allah Cheikh am na solo Cheikh Bara ñu daa dem ci deuxième point bi Cheikh Bara keroog prestation serment bi foofu ca jam ñaajo sax gis naa la fa euh, yaag gaaya ca fa nga xamante ni bi fa ngeen ne ko prestation serment bi moment boobu lan ngeen yëg ak euh, nu ngeen ko dundee waa bis la boo xam ne nag bis bu rëy la ci démocratie bis la boo xam ne mën ngaa wax ne république bépp maanaam ñoo fa tey woon keroog. Mm-hmm. parce que ku la réer rek maanaam boo ko xoolee foofu gis nga ko bépp fànn. Mm-hmm. yàlla def na nag maanaam du woon bisu jomaay dëgg-dëgg. waaye mm-hmm. bisu baajo kamara la. bisu baajo kamara waaw parce que conseil constitutionnel. ñoom jomaay mën naa ñëwaat foofu. ko mën na faa ñëwaat man mën naa faa demaat. dégg nga waaye ñoom duñ fa ñëwaat. parce que daanaka groupe bu conseil bu ne. benn sens la benn yoon lañ am sens ci mën a installer président de la république. Mhm. ci seen diiru mandat boobu ñu yor. parce que duñu am ñaari yoon mën a dajale ñaari président. Mhm. kon donc Badio ak ñoom Cheikh Tidiane Diack Coulibaly ñoom ñoom moom bis ba. Mhm. vraiment te it ñoom dañoo am lu ñu def ci démocratie Sénégal bii malgré que nag bëri nay coow bëri na fët mais nag wax dëgg yàlla. Euh, bu élection amee. waaw euh, seen taxawaay. ñoom bokk na ci. Ah, waaw bokk nañ waaw ba xam taxaw nañ ci dëgg def nañ ci liñ ci war a def keroog ñëw nañ ak seeni i robb <coughs> taxaw sol seen mbaxana askan wi tàccu leen ñu toog su mi seen mbaxana yi teg après jomaa yi ñëw daal di dox dox bu dëgër ak si toog. Mm-hmm. waaw moom itam wax dëgg yàlla keroog ku xamoon yi fay daan toog ak moom di wax ak moom nga gis ko keroog di nga am yaakaar. Mm-hmm. parce que dof ak baadoo la ñoo xamul luy teraanga. Mm-hmm. dof boo ko teraalee xamu ko. du ko yëg parce que da koo xamut. waaw baadoola boo koy teral du ko yëg parce que day jàppale lañ koy defal nii moo ko yayoo. Mm-hmm. moo tax koo gis nga koy defal teraanga mu cay yëg boppam. Mm-hmm. du la fay. dégg nga mais joomaay ah. keroog boo ko xoolee te xamoon ko da ngay yëg ne sax kii liñ koy defal yëg na ko. Mm-hmm. donc yëg na ko. day mel ne kii du joomaay mi nga xamoon daal. voilà ci taxawaay ci discours ba pare en même liñ miinoon mooy discours. bu dee bu Macky Sall baag bu Ablaye Wade ba discours bu gudd la woon. waaw ah. bii jàll daanaka discours bu matul 15 minutes mu faram fànce li muy faram fànce lépp dem. pare daal di ciy pare. Mhm. jataay ba nag naanaam man bokkoon na ci li ma doon tiit mooy mu am ay sabotage ci wàllu euh, wax naa ko sax keroog sama émission kii bi wàllu sécurité. Hmm. waxoon naa ne nañ defal ko sécurité bu doy nañ defal Diomaye sécurité bu doy loolu dama ci gërëm gendarmerie nationale. Mhm. Euh, gendarmerie yëpp tàmbale ko ci ci bopp bi muy général Moussa Fall ba ci ka ca gën a tuuti. Mhm. ak di leen ndokkeel sax ci feetu tey bii 4 avril bi ak armée nationale bi yëpp. comme ni ko Jomaay defee démb. Mhm. parce que keroog vraiment sécurité ba mat na troupe yi ñu fa indi sax damay wax ne est-ce que daan nañ ko indi ci yeneen euh, kii yi ci des maanaam passation de service yi ci des. waaw waaw parce que keroog gars yi màcc nañ fa def nañ fa lu ne. voilà doon naa loolu bañ am. parce que boo amul esprit républicain rek maanaam keroog mënoon naa am leneen lu lu mu demee parce que xam nga rek li fi jaar daa bari jërul leeral bi ñu fa jógee gis nga ko bi muy dem pale fas yi. waaw loolu nag moom lu lu lu am solo la fas yooyu parce que noonu ñu solo loolu suñ maam yi bu ñu daan dem xeex. noonu lañ daan solo am nañu daan wax ay spice ñoo daan solo yu xonq yi. waaw bu ko defee seen kilifa yi ñoom dem ba waar ak ñoom Samba Lawbe ñooy sol manto yi xonq yi. Mhm. njaabal fas yi rëppatal ko moo tax keroog bi ma ko gisee wax dëgg yàlla sama sama yaram ndaw na. sa yaram daw na dëgg yàlla. Mhm. mu dem pale fekk président Macky sàll am na nag ay manquement yoo xamante ne faaw ma wax ko. comme parce que Abdou Diouf. Mhm. Senghor dafa toogoon ak jabaram. ci biir pale bi recevoir ko ñu def feet bi yëpp mu dem. ab Abdoulaye Wade Senghor Abdou juuf dafa toog ak jabaram. def ko. Macky sàll mi Ablaye Wade dafa toog ak jabaram. ci biir pale bi defal ko feet bi. Mhm. bii yoon nag Macky sàll ak jabaram tooguñu fa. waaw loolu vraiment manquement la boo xamante ne. Mhm. dinaa ko wax. Mhm. jàpp naa ne tamit. caq boobu indiwut jabaram de. non mais Abdou Diouf dafa toogoon maanaam ki daan joxe. en chaque fois da ngay toog ak première dame bi ak président de la république. ki ngay tabbu ñëw ñu jox la lenge yi. yoon nag. kee tamit boo woon ba xam Macky Sall andi na jabar waaye moom ñi moom dañ daan waaw Jomaay est xaw ma ba xam jabaram mais bu fekkee jabaru Macky Sall amu foon jabaru Jomaay est dana mën a dem sax voilà léegi daal moom li mooy comme moom noonu lañ ko defaloon mu defal ko waa looloo gënoon takk caq bi tamit daanaa gis ñu koy defee pale lañ ko daan ah, takkee tey gis naa ne defewuñ ko fa mhm. comme ñëpp ci pale lañ ko doon takkeet wax dëgg yàlla mënoon nañ ko koo takkale pale comme nañ ko daan defee président bala ko doon takkal waaw président ah. moo ko daan takkal mm. loolu lépp gis naa ne amu ci loolu mm. yëpp nag maanaam yu ñuy alerté la rek parce que léegi da yoole ñu lay fay. Mm-hmm. waaw. Eh. <laughs> man mi dama man mi nga xam ne damaa yoroon ay dossier war a yoole gratuitement jomaay maa ngi koy sant résultat bi nag teel naa ñëw ci man. waaw ndax léegi da yoole. ñu lay fay ñu lay fay. waaw ah, benn boy nee ah, yoole muy dox. waaw yoole muy dox mu kon nag léegi man boobu yoole naa ko loolu dañ ko waroon a def ni ñu ko waroon a defee. waaw donc kon bis bi daal noonu la demee. Mm-hmm. vraiment sant nañ ci yàlla. parce que def am nañ am na ci li war a amee. Mm-hmm. Macky Sall tàccu nañ ko mu dem. en tout cas nag am na lu may ñaaw lu may mënoon naa dem d'accord. Hmm? waaw mënoon naa dem Touba. kan Macky Sall. Hmm. donte waxoon naa la fii. ñu bari wedd nañ ko ne la. ba ba Sonko grève de la faim. waaw sëñ dafa ne woon Macky Sall bàyyi ko. waaw mu ne ko soo waxee ak mu bàyyi grève bàyyi ko. waaw. dégg nga. waaw sëñ yónnee ca Sonko ne ko bàyyil grève bi. waaw Sonko ne bàyyi na. Hmm. mu téléphoné ko. sëñ Mountakha téléphoné ko ne ko Sonko bàyyi na grève bi. mu ko dinaa ko bàyyi. ba mun Muntaxa jàpp loolu mu xëy génn ca ndax topp ñoom ma jëmbal jaañ ak politiciens yi. Mm-hmm. loola ak tey jii moo tax waxoon naa leen ñi muy tuta dem Touba. Mm-hmm. defe naa ne président bu fi toogit ba jóg. te demoo Touba tàggoo ji. wala nga dem Tiwaawan tàggoo ji. Mm-hmm. gisuma ko. tey nag Macky Sall def na ko. d'accord voilà mënoon na koo def nag mu gën a rafet ndax kilifa diine yi 2 mars 2021 ba léegi. bu caaxaan jeexee dëgg dees. waaw dañ ko doon jàppale rek. xamoon nañ li xew ci dëkk bi lépp. Mm-hmm. waaye dañoo xamoon ne buñ toppoon euh, fi ñëpp ne dana xat dana gën a xat ci dëkk bi. waaw jàppal nañ ko tànk luñ man pour pour pour bëgg mu yeggale liggéeyam ci jàmm. Mm-hmm. su demoon ba mu yegg nag waroon naa dem ni leen jërëjëf. d'accord ñu dénk ko. Mm-hmm. mu dégg liñ ko dénk. dana doon na gën a rafet. d'accord jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara ñu ngi jëm ci troisième point Cheikh Bara premier discours. discours jomaay bi nga xam président Diomaye bi nga xamante ne bi amal na ko démb. Mm. ak tamit nga résumé ñu ko daa dee ñëw tamit ci ki nga xam ni euh, tey ci bisu tey bi nga xam ni général Moussa Fall euh, bi mu ñëwee loolu la booy jaaxle ne bi mu toojalee jomaay àddina tey dafa xaw a doy waar noo hmm. jàngatee yëf yi nga xamante ne bi xew na tey. waaw waaw tooj bi moom daa mel ne wër na réew mi tey. te war na ko wër nag. Hmm. waaw wax na war na ko mën a wër. Hmm. waaw nii. <laughs> boobu moom tey <laughs> def na effet. waaw waaye damay njëkk ñëw ci discours bi. waaw discours bi démb Diomaye boo ko xoolee première fois mooy dafa am esprit républicain. Mm-hmm. voilà esprit républicain la am. ci mm-hmm. diggante bi mu yor nguur gi ak tey jàngat naa ko ci moom. Mm-hmm. maanaam am na esprit républicain te loolu dafa dafa dafa sew. te nit ñi manqué ko gis nga Macky Sall bi muy wax naan du ma jox nguur gi. tojkat. Mhm. boobu li ñuy wax esprit républicain la amul. Mhm. moo tax mu jàpp ne mooy joxe nguur gi. waaw bu ko esprit républicain réerul woon rek ci moom. Mhm. du ko waxee noonu. du wax loolu. bi muy jël fond boobu di ko def couleur partem. maro marron beige. tam nekk verte jaune rouge nga dindi ko def fa sa marron parti. amul esprit républicain. bi muy wax naan sama rakk dañ koo giñ nangam. waaw du esprit républicain. Mm-hmm. bi muy def ab ab tem ca pale ba jël ay doomam ak yu bari ñu toog foofa ca wetu journaliste yi. Mm-hmm. du esprit républicain. Mm-hmm. dafa dafa ñàkk esprit républicain. Ablaye Wade tamit ñu bari dañoo jàpp ne républicain la mais Ablaye moo gën a ñàkk esprit républicain ci lu bari. <laughs> moom itam day jékki-jékki jël Karim nekk ab baay. bu yori doomam yoru dëkkam. teg lu ko neex. joomaay boo xoolee démb bi mu ñëwee dafa tàmbali gërëm Senghor gërëm Abdou juuf gërëm Ablaye Wade. gërëm Macky Sall Macky Sall toog na fi fukki at daanaka nangu ko tudd turu Abdoulaye mm-hmm. nangu ko tudd. parce que amul esprit républicain dafa bari lu de lu lu fu ay jaar-jaar te yaakaar naa ne nag moom bu ma nee ab Ablaye Wade ndax ay jaar-jaaram ak Ablaye Wade. Mm-hmm. man ne xaw ma lu ko mag lu ko jomaay war a def. koo xam ne bi mu génnee kasook léegi matul ñaar fukki fan. waaw. nga jàpp ne war na laa mën a baal war ngeen a maanaam bàyyi li jàll lépp ci jàmm. waaye Abdoulaye Wade mi nga xam ne jotu laa tëj kaso te lu mu néew néew yow Abdoulaye Wade fal na la ministre fal na la lu ne yow ah. waa Diomaye mosoo ko defal benn teraanga mm-hmm. sa jàpp nga ne maanaam war naa mën a am esprit républicain bàyyi mu jàll yow mënoo woon a bàyyi sax mu jàll donc esprit républicain boobu Diomaye amee man mm-hmm. naw naa ko ci mm-hmm. ak euh, discours bi tamit jàpp naa ne boo joxoon maam Birame Waaj Pape Alé ñaa mooy ñi nga xam ne euh, dañuy dañ leen a xam ci ñuy wax nga xam ne duñ li ñuy wax maam dañuy xool intérêt Sénégal rek di ko waxee. suñ bindoon discours bee maam mënuñoo bind lu paase la Diomaye wax. maanaam amul kenn ku mas a jàkkaarloog ay nit bëgg leen a bëgg leen a diriger wax leen wax ju maandu. ju tollook ni ko jomaay waxee. waaw wax ju maandu. la ko waxee te dafa cohérent ak projet Pastef. waaw projet bi ko daan wax. Mhm. dafa cohérence ak li Diomaye wax démb. Mhm. bi ci des mooy léeg-léeg. xam nga Assane Mesere mën na la saa njóog naa la may 10 millions. bokkut ak sëriñ Mbuub wala Baba Jaw etoog wala ku mel ne euh, Babacar Ngom Sedima ne la saa njóog danaa la may 10 millions xam nga ñaar yooyu du tolloo xi ñoo bokk baat yi ni ñu ko waxee. ñu tolloowut. waaw ndax Babacar mën na daa denc 10 millions. waaw ko. Mm-hmm. Assane mi ko dencut nag digla ko xam nga bokkut. déedéet Assane maanaam maanaam jomaay jomaay daa denc maandu. <laughs> daa denc maandu. waaw daa ñuy dig maandu kon mën nañ koo yaakaar. daa denc maandu. denc na moom daa denc ak maandu ci boppam. waaw daan ne dinaa maandu. kon dañ koy yaakaar cent pour cent. Mhm. denc nag njub. Mhm. daan ne dinaa jubal. Mhm. dégg nga. waaw euh, kon dañ ko ci mën a yaakaar day am koo xam ne moo gën a dëng ñëpp ba noppi naan dinaa jubal. xam nga moo ko Assane mu lay dig dix millions ñooy am. jurut yaakaar. parce bu bu balaa ma la koo jox am ko. amu ko. effectivement nag looloo tax maanaam. loolu discours bi am solo. Euh, discours bi daal di am solo li ci des nag mooy nguur gi. nguurug jomaay gii tamit damaa seetlu ne du nguur gu def taati neen. du du nguur gu def. nguur gii ñu génn moom. waaw neen la woon. taati neen waaw nguur gi ñu génn. Mhm. al dox wax loolu. nguur gi daa defoon taati neen. sol pàcc nguurug jomaay nag moom daa sol garam mbubb sol ab ab kii ba sol garam bu ba kaalaw teg ci. mooy gis nga bi mu toogeeg léegi. Mhm. Sonko ndax day nekk premier ministre wala du ko nekk. Mhm. parce que amul kenn ku ci mënoon a wax lu leer. dañoo jékki-jékki rek mu nekk waaw bi mu ko nekkee ak léegi. waaw diw day nekk ministre Sénégal li muy rëy rëy yow tey amoo kenn comme mën a cité na dana nekk ministre. fi ne gars yi dañu xiini xaana rek. Hmm. te pourtant ñu ngi doxal seen liggéey ñu ngi def li ñu war a def. Hmm. benn araf sennu ci. Hmm. loolu mooy nguur gu sol yére. pourtant nguuru Macky Sall premier ministre bi kenn xamu ko. woon Abdou Mbaye bi muy wër Abdou Mbaye ñëpp a ko xamoon. ne mi ngi bi mu koy seete sax nee nañ départ na àgg na fa. <laughs> Abdou Mbaye waaw. njëkk naa seeti am na am na ñeneen ñum ñëkkoon nañ nar a jël ba mu yàgg ñu bàyyi ko ah. nguurug Macky Sall moom gi yaramu neen la defoon ah bon day bëgg jël Antoine da ngay xam ne diw dañ koy jël <laughs> dàq na ko Antoine lii lañ ko dàqee diw dañ koy waaj a dàq dañuy ah. bëgg a former gouvernement ah. lépp ci mbedd mi nga koy yëgee hmm. parce que nguur nguuru Ablaye Wade la jógee ba maat waaj loo ministre waat leen jeex na nguur gi nguuru nguurug yaramu neen la <laughs> nguur gi nag moom daa sol garaam bu moom waaw gars yi xamuñ ci dara te loolu nag loolu nag maa ngi leen di ñaan nañ ko ci continuer nañ ko continuer mooy nguur gi man tiituma ci kuy sàcc mm. parce que xam naa ne du ci am tiituma parce que xam nga loolu xam ne gars yi caaxaanuñ mm. jomaay marito ñaan mi mu jël def ko chef de cabinet rek waaw xam nga maritoo moom daanaka mat na bàyyi jomaay sëkk moom waaw mën na koo jur mm. jur gu wér mm-hmm. nit nag du nari caaxaan di ànd ak morom bàyyam moom déedéet <laughs> <laughs> waaw bu doon daa bëgg a noos ak taxawaaloo dugal dugal di wutal ma costume bu rafet ak. Ah. temps yi fu gën a neex ak. Ah. yooyu bu doon loolu la nar rek. Ah. ki koy gën a jege. lu doon moroom baayam. Mm-hmm. te koo xam ne tamit dañ koo xam ci njub. Mm-hmm. parce que yi foofu dafa cohérent parce que jomaay maanaam mooy fonctionnaire boo xam ne maa ko ëpp xaalis. 3 mm-hmm. millions la denc man am naa la ëpp millions xëy na. marito ñaan mooy koo xam ne liggéeyal na république ba màggat. waaw ba amul kër ndakaaru. Mm-hmm. bu doon ab sàcca am na ci immeuble yi. wallaay. ba ba ba ba ba muy nekk di liggéeyal senegal di am xam-xam booba gone yii di tabax immeuble yi kenn amu ci dërëm jaar nañ ci kawam ba tabax bu yàgg mm-hmm. kon nag jomaay foofu dafa resul cohérent bu dee nag toojuk Moussa gi waaw bu fekkente ne man jomaay mi ma xam mm-hmm. ak Ousmane Sonko nga xam ne ay républicain lañ waaw gisuñu gisuñu Moussa Fall gisuñu ko gisuñu ko damay wax nag ne loolu jomaay am. muy esprit républicain wax moom Moussa Fall xaw ko yàlla na ko Moussa am bu ko amee rek. Mhm. bis bi du metti ci moom. du metti ci moom waaw. parce que dafa am lu ñuy wax président bi. waaw mooy jomaay. am lu ñuy wax président gi. waaw gi nag moom xamut pël xamut séeréer xamut kenn. Mhm. benn galon la rek booy takk. kooku moom ku ne mën na koo doon. président bi nag mën naa doon pël mën naa doonum naar mën naa doonum njaago. Mhm. tey jomaay la démb Macky Sall la woon. léegi nag bu fekkente ne général Moussa Fall moom gëmul président bi mooy gëmul Macky Sall. waaye fonction bi Macky Sall yoroon la rek la la doon xool. Mhm. c' est pas problème pour mu toojal jomaay. du am problème da koy def avec plaisir. Mhm. mais bu fekkee nag dafa amoon Macky laa bëgg man bëgguma jomaay c' est difficile nag nga jàkkaarloog jomaay fay tey tóojal ko. Mhm. mais yàlla na nekk nag ab républicain boo xam ne moom gisul jomaay. mais ndomba tànk bi lay xool. jomaay tamit bu fekkee général Moussa Fall mu tudd Moussa sant Fall dëkk Ngaye kooku moom boo ko xoolee da nga kii de sama lii la wala sama laa la waaye bu fekkee yow républicain ab esprit républicain la du gis Moussa waaye ganon bi day gis mooy ab général lay gis mooy sénéral bi ak sénéral gi sénéral bi nag moom mën ngeen a neexante wala ngeen ñàkk ñàkk a neexante waaye bu dee sénéral gi kooku jomaay dafa am droit sàmm ko aar ko parce que ci république la bokk. donc. waaw. waaw na kon donc mën na noo yem foofu. waaw. wax daal. waaw. Euh, feet bi. Mhm. tey niñ ko feetoo woyof na. waaye neex na. woyof na neex na. waaw parce que. Mhm. tóoj boobu Moussa Fall tóojal seen euh, euh, jomaay tey. maanaam tax na ñëpp yëg nañ ne tey 4 avril la feet ña nga doon kii am na lu ma seetlu ci jomaay tamit. mooy buy def euh, lépp lu muy def ak loo xam ne international la ko seqal. ci laay gis muy sol costume. Hmm. mais dafa mel ne su dul international rek maanaam yëre wolof lay sol. Hmm. boo ko xoolee keroog bi mu njëkk a def discours am bi mu faloo. Hmm. ak keroog bi muy waat ak démb discours à nation bi. li ci des lépp. daanaka doo ko gis mu sol benn yére tubaab. Mm. yére yére costume africain yi rek lay sol. Mm. loolu tamit maanaam am njàngat la. parce que am na ñoo xam ne daanaka dañuy sa sol sax suñu yére yi garaam bu yeeg suñu dàll yi. d'accord li ci des mooy président c'est la première fois ñu am président de la république boo xam ne daa am nday ci dëkk bi. Ah. am bàyyi ci bi. Ah. nga xam ne maanaam bu yokkoon bu jë bu jëloon prix gerte bi yàqu ko sax mën naa am fii ne bàyyi may a ah. maanaam bu doon yàq mbay mi danaan kon saa tool yi bàyyi njëkk a am nañ ko fi. Mm-hmm. c'est la première fois. ñu am président boo xam ne daa am ñaari jabar. am nan ko. Hmm. c'est la première fois ñu am président boo xam ne difficulté yi suñ jigéen ñi di jànkonteel ci poste de santé yi. ak ci marché yi bu bu lujum seeree sa jabar ji day dem duggi marché ndax gone la. wala tey man man man mañ naan sama jabar day mucc. Hmm. day am doom ma dem di ko seeti fekk fa jomaa yi mu ne sama jabar man itam day am doom. waaw nga xam ne ñun la daal. ñun waaw. Hmm. ba pare fal nañ président boo xam ne tamit ci Afrique. koo xam ne ay carte ko fal. ki ci gën a néew ay at Sénégal a ko fal. te koo xam ne dañ lay liggéeyloo nag. Mhm. nga mën a dox ni nga mën a doxee. mën a xool mën a wax mën a mën a def lépp loo mën a def. Mhm. ah yaakaar naa ne ku doon wut ab bon ñu indil la paa bu am 60 ans wala 70 ans. Mhm. ak xale bu am 40 ans doo jël doo jël paa bi. paa bi kañ boobu te pourtant paa bi am na expérience bu bon de yàgg naa dekk. <laughs> liggéey na fu ne de. waaye nag wax digg yàlla jomaay daal. président la boo xam ne boo ko xoolee sa bopp ngay gis moom bu ñu xoolee boppam lay gis. d'accord donc kon li ci des. Hmm. man am naa yaakaar cent pour cent pour cent bu politique jàllee lépp jàll. kene réew mi ci maanu lay dox. ak njub ndax ñàkk caaxaan moom moo nekk pale léegi. muy Sonko hmm. waaw ñàkk caaxaan. Hmm. bu ci kanamee itam di ngeen xam li ñu gaa yi bëggoon a xañ. ba teg ci seen bakkan yi. waaw. ndax réew mi moom képp kuy góorgóorlu. waaw. la Idriss Seck waxoon ba muy def passa euh, déclaration kii wam ba mhm. ne góorgóorlu waaw dina sant dina kontaan waaye njublang mhm. dinaa ko jëflanteeg moom njublang njublankat yi tey ñu dee ndax ñàkk caaxaan a nga pale waaye liggéeykat yi. kontaan leen parce que dana mbir mi dana baax. jërëjëf Cheikh Bara macha temps bi jeex na defe naa ni sax débordé nga. Hmm. débordé nga sept minutes. déet waaw débordé nga sept minutes waaw c'est vrai. débordé kon wasalaam léegi maa ngi. wax ne suba. léegi moom maa ngi sama kër di di faj di seet di ñaan. Hmm. joteetuma kenn dara. Hmm. waaw. <laughs> waaw. waaw fàttali numéro téléphone yi. maa nga fa léegi nag hémorroïde seere balot maag sangatu njare njare ku la seetalak ku la jox ca ngat ubbikoo ku bëgg nit ñi bëgg la ku bëgg a siiw yëpp fekk ma ta ngéej si ta man Mansour termini su 48 mhm. sangat euh, garab yi muy wàllu hémorroïde ak mhm. wàllu yokk ngóora mhm. ak estomac yooyu yëpp boo demee mbuur ca gannaaw osan ba boo taxewee ci osan bi rek nga woote aboo taal ma nga fa mbuur am nañ fa boutique sangat yi lépp am na fa boo demee Touba jili njaaye nga fa wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir ci tëlib Gede ba. boo demee Thiès wetu kër Mbay Juuf ñu kër gi jàkkaarloo kër Mbay Juuf. waaw Assane fa moom itam garab yi ñu ngi foofu. wala kaasamaas wetu kër ñoom Sonko. Mm-hmm. altine mooy bis bi ñuy faj rab. Mm-hmm. benn fan saa njoogu boo ñëwee nu faj rab yi mu génn ci yow. ak lu mu la mën a def. ak mm-hmm. fu mu fu ngeen mën a yegg rek bis bi mën nañ ko ci teqaleeg yow. waaye da ngay téléphoné nga jël rendez-vous. ñu jox la rendez-vous nga ñëw ñu génnee la rab bi ci bis bi dañ koy seet xam nu mu demee génnee la rab bi wax la say sarax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. voilà di fàttali numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoog Cheikh Bara Ndiaye sa aajo fan ci kàttan yàlla subhaanahu wa taala ëllëg dinañ la yenul béti mi indil la ko moom ak ma jigéen ne la ko bëcc bu ko defee nga seen rab yi Cheikh xam na ne aw ma rab ñoom ñaar ñi ñoo am rab ayca ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax hmm? sa Cheikh Bara Ndiaye di souhaité waat Serigne Sidi mu ndaw un très joyeux anniversaire di nuyu yaayam kat yi abo mu mbuur maa ngi leen nuyu Moussa ak ñoom Cheikhu naak Baye mbay yépp ñu ngi leen di ziar ayca ñu tëj première partie bi euh, victime du net di ngeen ko fekk ci Solution TV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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 Macron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda